toujours en rapport avec l'actualité et donc les sorties des uns et des autres. Que pensez-vous du niggle politique? Voilà la question du jour. que pensez-vous du ndigal politique euh, maanaam ci wolof lan ngeen xalaat ci euh, ndigal politique ñu leen di ñaan toujours ngeen suivre ñu si euh, Google sur Twitter aussi ak YouTube di fàttali suñu mbokk yi aussi nekk sur futurmedia.sn futur avec S média avec S di ngeen mën a suivre actualité TFM en direct en cliquant sur TFM la chaîne en direct.